campagne mu ngi labouré dëkk bi mais pour mu gagné élection 2024 yi ah lu ma jaaxalee de noonu gagné ko non gisuma ko de wax dëgg na yàlla gisuma ko. en moom mu ngi ci terrain bi te léegi sax day dugg ci provocation yeeg ki demee noonu. Hmm. nee ak Macky yi dañoo nekk di diil. Ah, carrément moom moom non moom waxee ko noonu dafa poser ay questions. Uh-huh. yaa ngi dégg. mais on lui retourne que ni moom. il a toujours été un artisan du dialogue donc bu gisee quelqu'un du dialogue koy daf ko war a applaudir wala daf ko war a. Euh, ak deal est-ce que benn. non mais non attends deal c'est quoi waxtaan la rek. de toute façon moom man je ne pas OS ne Macky toog fii ak deux ans. wala six moi no non non je ne le pas. xam naa ni moom li ko gën a amal njëriñ. te loolu maa ngi ci gis ay résultat mooy discipline politique. Pierre Goudiaby Atepa waxul textuellement mook OS la mais dangay xam ni loolu moom OS wax na ko Pierre Goudiaby Atepa c'est sûr parce que euh, dimanche passé la woon bi mu fa demee euh, vers les cours de 19h su ma jumale 19h 19h et quelques genre yooyu je pense avant 20h mook OS au moins ils se sont enfermés pendant une vingtaine de minutes te wax nañu waaw mais moom li nga xamante ne moom wóor na ma ni moom waxtaan nañ ci moom mooy les détenus politique mm-hmm. te OS il a toujours été intransigeant là-dessus donte Macky Sall mosu ko nangu mais in fine j'ai un journal qui se pose la question en manchette lan moo tax li Macky Sall bëgg yëpp wala li Sonko bëgg yëpp Macky Sall mu ngi koy def wala mu ngi nekk ci yoonu def ko mais OS aussi tamit qu'il soit très regardant de par ses arrières parce que koo xamante ne bii moom ci ay schéma kese nga mës di dox koo xamante ne bii yaa ngi ne woon du ma nekk troisième mandat te yaa ngi ci prolongement ak prolongation constitutionnelle la sëñ bi bàyyi li ngay def kooku lépp lu mu la wax bu yeboo nga def ci ndànk dialogue yi ñu fi mës a def yëpp jariñul dara pour les populations ñoom classe politique bi sax boo xoolee euh, liñ leen ci jox daanaka bañ leen ko jox moo gën parce que parrainage bi dialogue la te gis nga li mu diviser moo ëpp fuuf li mu unir wala lu mu defar donc euh, mu ngi noonu daal. mais waxtaan entre Ousmane Sonko ak Macky en dehors des détenus politiques parce que certainement aussi waxtaan nañ parce que peut-être non loolu kay. certainement au premier point loolu amul sax waaye loolu kay. am na sax ñu ne lu tax Ousmane Sonko génnegul dafa exiger na ñëpp génn ba pare bala ñuy lijjanti détenu politique yi moom kooku OS dafa yàgg a nekk mbir moo xam ne daf ko itteel. ak ñi dee et loolu mars 2021 mandataire u Touba yi. ñoom li ñu joto ñoom waa m 2 je pense c'était à l'époque ça ñoom seen mémorandum bi ñu defoon loolu loolu ci la bokkoon tétali politique dédommager les famille des victimes et cetera finalement suñ mën taxaa sax moo jël xaalis yónni waa ISBU wala quelques membre d'ISBU ñu def la pérégrination des de ces familles là le tour jox leen seen jaxal ñaanal leen masaw leen euh, état bi yëgu mënum ci def alors que ce qui était même si c'était pas officiel mais c'était était convenu de parler médiateur parallèle mooy état bi am am nu mu taxawee auprès de ces familles là voilà. Euh, mais en dehors des détenus politiques lan la ñu mën a waxtaanee entore dehors de cela Macky mën nañ jàpp ne dafa bëgg a assurer ses arrières protéger ses arrières wala. waaw mais loolu bu ko Sonko joxee ay garantie kon day fooy dëkk bi Sonko daa moom dëkk bi <laughs> Sénégal kenn moomu ko ni Sénégal kuñ ko jox. c'est sur la base de engagement et d'un serment constitutionnel dëgg de constitution bi réforme 2007 bi leer la wax suñuy ressources ñu ñoo ko moom Macky Sall moomu ko Wade moomu ko assurer ay arrière ñu loolu suñoo nekku ci dañ dem élection kuy Sénégalais yi décider nga falu nga falu assurer arrière amul une reprise nañu dem ci bii une nañu dem ci bii format mu jeex waaw loolu laa gis que OS soit élargi de prison jomaay El de prison soo ko son directeur de campagne waaye nag loolu dama xamul ban dëkk la xaj de boobaa bu ko nekk ak Basiiru dugg ci dëkk génnaat xaw ma kan moo am fitnaan da nga fay dugg wala ñu ne dëkk bii OS ak basa fi war a ñëw ku fa mën a jaari doo déggul la neex te tamit loolu tamit xam nga tey état bi fexe na ba Pastef am président am vice président loolu <laughs> xam nga loolu. ticket présidentiel. <laughs> xam nga loolu tamit doomu Macky Sall moo mën defar nit. barke l'islam moo mën defar opposant mën na ko yàq mais mën na ko defaral. fi mu nekk nii fexe na ba ex Pastef ëpp doole Pastef. ñu am président am vice président. jëpp laboratoire wu même moo ko liggéey. loolu yàq la. <laughs> wax nga lu wax nga lu am solo lu nit ñi bàyyiwal xel Ousmane Sonko ak Diomaye ci campagne électorale. non mais loolu kan moo ko attan. maanaam boobu riir. kan la yàlla bind nga attan ko sëñ bi sëñ bi yaa ngi gis OS tàbbi ci dëkk. ñu nar a ci dëkk bi. bas mu ndaw bi topp ci gannaaw OS nekk directeur de campagne am. te gaa kooku amul ci maanaam ci Sénégal gisuma. nam bi leen gaa yi namm. sëñ bi loolu lu gaa yi bi loolu loolu doy waar. est-ce que loolu du trouble à l'ordre public loolu <laughs> tous les rapports de la préfecture de la sous-préfecture de la gouvernance du MINT autrement dit du ministère de l'intérieur yëpp loolu la ñuy bind loolu ce serait vraiment insultant pour l'autre camp quoi très honnêtement mais attends ñu sëñ bi yow mais yow yaa ngi imaginer le 19 novembre lorsque OS a désigné Bass Ndongo mais sëriñ bi gis nga effervescence bi am ci parrainage ci la am ba après taxaw di génne ay 4 millions d'électeurs presque 3 millions et quelques. bi xam nga ni non li ma lay wax nii. lu reetaanlu la mais ma exemple bi xam nga mooy ban. élection locale yi. 2022. Ah ak législative législative yi nga xamante ne liste nationale euh, yeewee dañ ko dañ ko dañ ko rejeté. OS ñoom 15 jours de campagne kese lañ def. xool ni ñu dëbbee dëkk bi. sur les 46 départements je pense ils ont fait les 39. yéex a démarré campagne parce qu'ils étaient groggy du fait du rejet de leur liste. campagne bi mu commencé jour tabaski la je pense quelque chose comme ça ah. Euh, à part bi ñoom Mimi Touré ñoo dem def seen effectuer seen ziar mais ñoom 14 jour lañ def de campagne. mais yaa ngi imaginer sëñ bi OS ñu élargir ko de prison nga xam ne nit ki da doon def partage de connexion mais imaginer mu sànni ko bas. jëpp mu sànni ko ba sëñ bi non loolu maanaam Sénégal amul benn leader politique moo tax Khalifa Sall tu le comprends c'est-à-dire OS bu ñëwee day jëlaat espace bi totalement presque lépp lay jël. lépp lay cannibaliser même tey jii marche tey bi mais bas gars yi daawuñu ko woon tudd quoi au fait mais c'est un hymne à de personnages da tudd OS tudd bas tudd bas tudd OS. mooy te loolu yëpp même moom lañ ko defaree. est-ce que loolu est que loolu du tax sax gaa yi téye kenn ki far ba ah, kenn dama leen di wax lu leer de. Ah. maanaam loolu moom boobu effervescence maanaam buñ la nee dañoo war a dem par exemple Kousanaar mu wóor non bu boobaa nag ci non xam xam naa nag ci boobaa nag ci la police di am nag liggéey rek hmm. xam nga ne bu gars dañuy toog bu ñu leen ñu naan non amuñu effectif non bu boobaa di ngay wuti effectif de parce que les candidats sont d'égale dignité. Ah peut-être état bi dina ko ne non Sonko war a cee bokk fokk ci n'est pas candidat xam naa loolu lañ koy opposé. que mën nañ ko. mais non xam nga gars yi leen leen lu neex la def. yaa ngi dégg mhm. même si c'est pas légal. c'est pas légal. parce que quand même il fait partie du et cetera. comme Macky Sall mën na nekk directeur de campagne man man man en man sa lool laa bëggoon quoi mu nekk benn genre duel des <laughs> inspecteurs <laughs> des impôts des inspecteurs des impôts et domaines quoi à distance. Mhm. à fleur et moucheté quoi. xamante ne en bas il des impôts et des domaines et cetera. Macky Sall nekk directeur de campagne am Bas nekk candidat OS nekk directeur de campagne am man moom wóor na ma ni même zone yi favorable Macky Sall yi nga xamante ne bii pour le pour la mouvance c'est totalement imprenable pour Benno gaa ñi danañ génn tàccu le combat d'OS et de Bas loolu moom maanaam loolu dama toog démb di ko imaay ma ne mais attends loo xamante ne maa ngi koy xalaat mais dégguma gaa yi wax ko mais sëñ bi loolu loolu maanaam buñ nee dañuy xaar la mouvance boo deful ndànk dinañ fa wéet maanaam dëkk bu karavaanu